d'être avec ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média bienvenue euh, ci euh, Midi Plus euh, tey mooy émission bi mujj ci semaine bi bis bu jot di te 11 h cinq jàpp 14h et quelques euh, tey itam euh, ñu fas yéene ànd ak yéen ba keroog euh, ñuy tàmbali julli juma gis ginnaaw bis bi tey tombé na ak vendredi 29 octobre 2021 exactement 11h50 mooy doog a jot ñu préparé comme d'habitude ay sujets yu am solo yoo xamante ni bëgg nañ leen ko baaxee laataa ñuy recevoir gan yi ñëw tey ci midi plus bi bokk na ci Malick Thiandoum qui viendra nous voir pour ñu waxtaan ci programme yu bees yi nga xam ni télévision Futur Média lal na ko bokk na ci euh, info matin new look alors info euh, mooy matinale information wala matinale d'information bi leen euh, télévision Futur Média di jagleel bis bu jot ak rédaction beeg journaliste yi à partir de cette semaine dafay ñëw ak formule bu bees on en tout à l'heure dans cette émission et puis daañu recevoir koo xamee ni ku ma xam xam ni suma doom la mu ngi tudd Baye Cheikh comme man bay Cheikh Xasida xale la waaye Sénégal sopp ko lool ci façon bi muy euh, yëkkatee ay xasida euh, ba noppi itam euh, beaucoup de questions ñu ngi koy posé wu ci moom dina doon suñu gan bu ca kanamee ngir ñu waxtaan ci yu bëri ndax nag am na projet bu mag boo xam ne dafa bëgg a ibbi kër Serigne Touba li mu bëgg a ibbi nag il faut kilifa yi jàppale ko ci donc daañu ci waxtaan bu ca kanamee puisque dafay ñëw seet si tey ci midi plus bi alors parmi sujet yu ñu leen préparé bokk na ci alerte bi ngeen di dégg fan yëpp jëm ci Lac Rose bokk na euh, ci euh, bërëb yi nga xam ne nii euh, daanaka day jaay Sénégal ci wàllu tourisme ak taar baak na mu mel ay nit di fa liggéey di ci wutum xorom taar gi ci lakk Rose bi itam ñaare dañu koy def ci ay carte postale mais malheureusement bu ñu moytuwul patrimoine bile dafa nekk en voie de disparition donc alerte bi on en parle tout à l'heure ci biir émission bi puisque dem nañu fa am na ñuy fa taseel ñoom it ñu ngi dànkaafu ñi ci war a jàpp bu ko defee du Euh, mooy euh, Lac Rose et puis euh, quand on parle des réseaux sociaux xel dafay dem ci saa si ci Facebook même si y a d'autres réseaux ki ngeen di gis di Mark Zuckerberg moom nag dafa annoncé ni Facebook dafay changer tour léegi Meta lay tudd on en parle tout à l'heure ak Mamadou Ndiaye puisque moo ñuy lijjantil lépp loo xamante ni xew na biir internet luyaas bu metti bi ci réew mi yéen a ngi koy fàttaliku ma jooju ñi ngi moo ko woyoon il y quelques années et 2021 euh, borom kër yaa ngi jooy ay jafe-jafe yoo xamante ni euh, sénégalais yi dañu koy dund euh, ci lii tubaab tuddee réglementation wu njëgulu njëgu luyaas bi fii ci Sénégal exigence la bu jóge ci président Macky Sall ci des ministres et je pense que c'est la énième fois ñuy def promesse boo xamante ni euh, sénégalais yi euh, li ñu bëgg rek mooy ñu appliquer loi bi jëm ci euh, wàññi lu yaas yi depuis 2014 nag selon eux amul suivi bu normal jëm ci lu yaas beeg ni ñu ko wàññee on en parle aussi tout à l'heure dans cette émission donc en gros li moo leen di xaar tey Euh, ci euh, midi plus bi bu leen fàtte euh, ni ñu ngi ànd ak orange bi nga xamee ni daf leen jagleel seen jeu méga win alors méga win bi nag mooy tax chaque semaine orange defar ay millionnaires surtout ay kiliyaanam pomeek na muy demee chaque mardi dañuy amal tirage bu mag fii ci midi plus bi donc mën ngeen continuer di jouer 22 7 22 ngeen yónnee win W N ngeen di yónnee bu ko defee ngeen mën a nekk ay millionnaires ñu ngi ànd itam ak Soumari bu dee ngeen am lu ngeen soxla ci wàllu électroménager par exemple c'est très facile soit ngeen dem ci showroom euh, yu euh, sumari wala ngeen dem ci site internet bu Soumari di www.soumari.com ataaya ju mënul ñàkk bu ñu demee ba ca kanam euh, fekk jeeg ji rëgal añ yi ba ñu jël pause am nañu possibilité wax dëgg yàlla naan ataaya bi la nga xam ni gaynde lañ ko tuddee donc gaynde la àndal ci midi plus bi boîte midi plus yi nag xam naa yàkkamti ngeen pour ñu tàmbali di yaa ngi bu ci nekk am na ku ñu ko tuddee duma ci ñëwaat ndax miin ngeen peut-être euh, lii euh, boit yi euh, nar ak yéen téléspectateurs yu Midi Plus dans chaque boit am na enveloppe yi def trois cent mille yi def euh, quatre cent mille lépp rek pour yéen la boîte bi par exemple ñoo ngi ko tuddee Aline Sitoé jaata bés bu ñu tàmbalee euh, ngeen di tànn boîte yi bu ñu ko ubbee lu ngeen ci fekk rek ci boîte Midi Plus bi yéen koy moom on va euh, démarrer ça xam naa fileek ay fan waaye dañ leen koy tegal ngeen mën di ci bàyyi xel ci Midi Plus bi en attendant ñuy ci collaboration bi ak yenn ci ay kilifa yu ñuy lëkkalool ngir amal ay po ci télé bi ñu bëgg lool fas yéene ànd ak yéen ba ca kanam xam naa nag ubbite gi tey ci ndimbalu apulaay euh, dañ leen di jagleel euh, suñu yaay joo xamee ni ab nabiyen la barki démb rek la ñuy waxtaan euh, ci umra boo xamee ni moo ngi koy amal ca Màkka kooku mooy ajot Faatu Géwél moom nag bu yàggul dafa génne way jagleel kooku tedd ki yonent bi gën gi mbindeef ñoom nag woykat yi yàgg naa dégg ñu naan loo mën a woy lu sa baat neex boo woyul yonent bi sa woy dafay nul moom la ñuy ibbee doog tàmbali jotaay bi tey jëm ak yéen 14 heures en direct ci télévision Futur Média

ajot Fatou Guewel la ñu ubbee tey euh, jotaay bi euh, mu jëlëb woy jagleel ko gën gi mindeef ñoom ñoo ko wax wax naa ko sànq loo mën a way lu sa baat neex boo woyul yonent bi sa woy dafay niil euh, midi euh, mooy doogo jot ñu ngi ciy bégal nabiyen yëpp ak fu ngeen mënti nekk ànd ak ñun ci bëccëg bi tey euh, ci télévision Futur Média Baye Cheikh a ngi wàcc ci ginnaaw pour fekk suñu Baye Cheikh xasida ngeen fonk ko lool tey moom la ñu fas yéene waxtaanal ci lu bëri ci midi plus bi avec beaucoup de plaisir Malick Thiandoum ñëw fekk suñu moom itam ci plateau bi sànq maa ngi wax nii ñu ngi waaj tàmbali saison bu bees bu info matin mooy magazine bi nga xam ne ni ñu ngi leen koy proposé Euh, fajar gi euh, Malick ñu ngi lay nuyu bëgg nañu ci euh, teewaay bi ci midi plus bi bon dama lay bàyyi nga nuyoog suñu gars yi ba pare. Ah. ñu doog a waxtaan nag ci Infos Matin New Look. waaw di la di la di la nuyu ah, di bëgg lool ndax xam nga bàyyi Cheikh maak yow dañoo yàgg. dëgg la loolu la yàlla dogal fu fu ne jaar nañ fa <laughs> ba yàlla dogal ñu dajewaat fii ci kër gi. waaw dellu nag. ah, ah, ah gu mag. waaw dañ dellu kër gu mag rek ndax soxlaa comme léegi ay mag la waaw waaw jëm nañu mag de ñu jëm nañu mag de ba door de foofu la woon baa si mi mais ko bàyyeeg benn xale. duñu ko bàyyeeg benn xale nag ñun moom mag la ñu nga xam ne ba léegi. <laughs> ñu ngi saf sap. voilà voilà liggéey bi moom macha allah. Euh, ñi ngi koy jox àqam donc c'est vraiment un plaisir mm. euh, te retrouver sur le plateau. ñuy nuyu également suñu mbokku téléspectateurs yëpp à travers le Sénégal l'Afrique et le monde ndax xam nga ni euh, Télé Futurs média foo dem ci àdduna nit ñi ñu ngi koy seetaan di def vraiment mention spéciale ak sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ndax euh, miroir du Sénégal la ñuy wax ñoom nag pour xam li xew ci réew mi euh, toujours ñi ngi ci RFM mais di ak TFM di nuyu ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñi ngi bëggee émission bu neex bi ndax vraiment Midi Plus c'est un plus par rapport ak li nga xam ne moo am c'est de la pause Ah, waaw mooy pause mooy pause te xam nga di keng bool keng. salim toodo jub dëgg la de. loolu moom lañ daan bëgg midi di keng. bool keng. waaw mais léegi jamono dafa naqari ba midi midi keng mais bool ay vers 17 heures sax. waaw bool bi dañ koy dañ koy lijjanti rek bàyyi. <laughs> le temps ñu koy am. donc euh, da nga ñëw seet si ma tey ci mini plus bi pour ñu waxtaan. Mm-hmm. Euh, ci euh, info matin déjà mu ngi existé ci télévision Futur Média fajar gi ngeen di ko seetaan ak rédaction bu télévision Futur Média mais dañuy tàmbali à partir de mardi bi saison bu bees bu info matin. effectivement Pape xam nga la télé c'est c'est de c'est de la créativité mhm. parce que bu fekkee ni da jël benn mbir di ko servir téléspectateurs yi mhm. ba mu am ab diir mhm. war nga xool nooy def ba gën ko améliorer euh, ci loolu je pense que euh, tey jii am na ñu nga xam ni c'est les cerveaux ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ils ont repensé et relooké info matin ba def ci euh, euh, lu nga xamante ni nii wax dëgg yàlla bu ñu ko servir askan bi dinañ ci gën a gis seen bopp mhm. parce que toujours souci wu euh, waa kër gi mooy fexe ba yokk mooy plus mhm. bi ngay wax nii xam nga tey ñi ngi ci midi plus mhm. donc info matin c'est un plus qu'on ajouté pour gën a jox nit ñi le meilleur de l'information parce que aussi nit bu yeewoo bëgg na xam lu xew ci réewam donc loolu mooy li ñuy njëkkee xamal nit ñi à partir de six heures trente lan moo xew ci biir réew du matin 6h30 du matin man de mënatuma ko. waaw man de man man. man yeewu ma kenn diggeewu ma ko ay téléspectateurs. wallaay wallaay man mii man mii jëm mag doom xaw ma xaw ma lu may wax man daaw ma. yeewu heure boobu mais chaque jour 6 h trente euh, lan moo nar a nekk particularité Infos Matin. voilà particularité Infos Matin mooy d'abord la variation qu'il Euh, ci biir ci biir li ñuy jox téléspectateurs yi parce que ce n'est pas seulement que de l'information il y aura de l'information parce que nit ñi daañu xam lu xew ci réew mi daañu xam lu xew bitim réew ñu xam temps bi nan lay mel à travers la météo mais dañu am yeneen rubrique yu nga xam ni moom lañ ci dugal parce que info matin c'est des informations à chaud c'est également Euh, sur le plan sociétal lu xew daañ ci wax. Mhm. sur le plan économique lu xew daañ ko xam. Mhm. sur le plan politique lu xew daañ ko xam. dans tous les domaines dans tous les domaines. et même le tourisme. Okay. parce que aujourd'hui am na sax benn rubrique bu nga xam ne dugal nañ ko ci. Mhm. muy dem xool biir réew mi yenn gox-goxaan yi nga xam ne. nit yi xamuñu ko. te pourtant ci biir Sénégal la ñu nekk. parce que tey pour vendre la destination Sénégal il ne faut pas se limiter à dire que nous avons 700 kilomètres de plage. nous avons du soleil loolu daanaka ñëpp am nañ maintenant il y a un plus que nous avons mhm. et c'est ce plus là qu'il faut montrer mhm. parce que Sénégal de l'intérieur am na ay sites rafet mhm. yu nga xam ne xamoo ko xamuma ko ñi ñuy seetaan xamuñu et pourtant Sénégal la nekk am na leneen aussi Pape des fois da ngay romb mille fois benn benn benn benn mbir mais doo xam lan la doo tu ne te jamais la question par exemple euh, lu tax édifice bi ñu tuddee ko diw hôpital Nabil Choucair par exemple kan sax mooy Nabil Choucair kan mooy Nabil ah te ah bis bu ne nga romb fa. Mm-hmm, mm-hmm. amaana sax faju nga fa. Mm-hmm. waaye xamoo kuy Nabil Choucair xaw ma kuy Nabil Choucair. yu mel noonu aussi dinañ ci def ay jéego yu am solo. Euh, de quoi est le nom destination Sénégal donc c' est vraiment un cocktail euh, bu neex a neex bu ñuy servir euh, les téléspectateurs avec des rubricards. parce que rubricard bu nekk di nga ñëw indi lu am solo. lu jëm ci la une des journaux. daañ ko def tôt le matin. après def revue de presse. ci mhm. biir une des journaux bi dañ ci tànn benn une bu nga xam ne bu saf la mhm. ñun ñëpp ñu toog ci plateau bi ñu commenté ko ah, waxtaan ci faram fàcce ko toj ko mhm. donc actualité chaude bu am i tamit daañ ci waxtaan donc mu nekk vraiment lu nga xam ne def nañu ay training yu bari bari pour que bu ñu ñëwee bu ñu dérouler rek nit ñi xam ne info am na sope donc lundi ba vendredi 6h30 ba 9h 9h 6h30 9h non stop de l'information mhm. dans la bonne humeur. pourquoi mardi pourquoi commencé wu leen ko lundi. waaw ah, yow xam nga ni lundi férié la nag Pape Baye Cheikh yow tam xanaa foo ne. waaw <laughs> mais terewul. waaw Baye Cheikh férié la kenn rek fàtte woon naa ni ah, férié yow xamoo sax lu xew man damaa férié yëpp en <laughs> lundi nag xamal sax do am parce que lundi férié la kon ah, on aura <laughs> un très long week-end donc mardi euh, dès 6 h du matin Malick Thiandoum euh, rédaction bu télévision Futur Média beaucoup de reportages euh, donc ngeen di commencer info info matin mais qu'est-ce que tu as envie de dire aux téléspectateurs en plus de li ñu leen jagleel ci ay reportages ci ay découvertes lan nga war a wax téléspectateurs yi pour obligatoirement ñu xaar émission bi mardi 6 heures du mat 6 heures 30 matin. mais xam nga c'est c'est une équipe jeune. man maay seen mag. man maa ci mag. ñoom ñëpp maa leen mag nag man xam nga ni man damaa yàgg. ba ñuy peinture asamaan si maa ngi fi maa ak yow. pourtant Chérif Chérif suñu morom la de. Chérif men Chérif Chérif a ngi ci biir. Chérif suñu morom la ah parce que Chérif keroog ñi ngi di waxtaane benn mbir. Eh, xam fàtt mu ne la fekkee na ko. fàttali ko jamono Cheikhu Chérif. <laughs> Cheikhu Chérif waaw. <laughs> xam Chérif lu mu daan de est-ce que tu sais que Cheikhu Chérif bi mu ñëw mu ngi ma fekk maa ngi def direct parce que mu ngi ñëw mercredi. voilà man maa ngi direct ci plateau RTS ak Mariam Samba. kon ñun nous sommes des anciens quoi. dañoo yàgg Chérif Segom moo ko fekkee. kon c'est un vieux. xam nga Chérif lu mu daan def. <laughs> photo Seexu Chérifu la daan jaay ah <laughs> Seexu Chérifu Seexu Chérifu. Hmm? bu ko gars ñu jaay ko. ah daan jaay photo Seexu Seexu Chérifu moom la doon wër di ko jaay <laughs> xaw ma li ngeen <laughs> en tout cas bu nekk et puis jour bu nekk Pape Cheikh comme tey jii mm-hmm. buñ nee date sàngam la mm-hmm. dat boobu am na lu nga xam ni xew na ci àdduna éphéméride euh, yooyu mm-hmm. dinañ ci toog waxtaan ci ak ak ak ak lu am solo donc on aura Cheikh Tidiane Diawo Fati euh, Nata euh, Cheikh Diop Malick Thiandoum Maroon et cetera donc c'est une équipe vraiment assez large et inchallah est-ce que day am toujours synchronisation bi ñuy def d'habitude ak RFM waaw dañuy def ci information yi Babacar Fall déjà et ses invités euh, téléspectateurs yi dañu koy bëgg di gis. dañ koy kii parce que loolu loolu dañ ko ci intégré. day am benn moment bu nga xam ne 7h45. Mhm. dañuy daal daw RFM. bu ko defee li di déglu ci rajo bi ñu koy gis ci télé bi. très bien bu Babacar pare ak ay invité ndax xam nga moom daa saf sap. Mhm. ku mu invité ñëpp dañuy bëgg a xam. Mhm. kan la ak lan lay waxtaan ak moom. bu RFM pare delloo ñu ñu continuer waat daal xaabaabal ba 9h. super donc kontaan euh, la ñu tàmbali euh, saison bu bees euh, info matin new look ak euh, plateau bu bees générique bu bees ay gëstu yu am solo yoo xamante ni da ngeen di yeewu ak une bonne dose d'information Malick Thiandoum Faty Dia Koulim Dioum ñoom ñëpp. man nag maa jënaaxi dàmba nañu ah man. Hmm. électro libre laa jënaaxi dàmba laay doon. Ah. maanaam neex dugg 6 h ba 9h. Ah. maa ngi toog lu waay wax ma dugal sama grain de sel du ma bàyyi kenn mu dem. d'accord donc Malick à à à mardi. ba mardi euh, incha allah et puis sama doom jii di ma seet si tey Baye Cheikh maa ngi gis léegi yaa ngi koy nuyu euh, nee nga yenn bokk dëkk. waaw Baye Cheikh dafa nekk suñu suñu suñu suñu suñu fierté. ah oui ndax Ngaye Mexe. Euh, ku ko xam xam ni dëkk la bu bu bu am solo ci ci ci ci Sénégal. Uh-huh. Euh, donc euh, xale bi ñuy gis nii. Uh-huh. doomu Ngaay la. Uh-huh. man may doomu Ngaay. donc te Ngaay dafa nekk dëkk bu nga xam c'est la troisième ville cadre du Sénégal. la fa ay cadre kenn xamul nu mu toll. nekk yi tamit dëkk bu nga xam ni dafa nekk ci xolu Kayoor. waaye nekk dëkk bu nga xam dafa am taarix. nekk dëkk bu nga xam ne dëkku dina la ndax Serigne Touba Xaadim Rasoul. dafa dafa julli. fa mu julee foofu lañ def jàkk ja ca Ngaay jiite. neexee donc mhm. kon xale bi tey nga mhm. invité. Mhm. ah bu ñëwee wax ci Serigne Touba Xaadim Rasul. bu ñëwee wax ci jaar jaaram. ñu xam ni nag ngaay bëri na ay kàngam yu fay. ba pare li muy xale yëpp dafa am projet dafa bëgg ibbi kër Serigne Touba. ah macha allah voilà dafa bëgg ibbi kër Serigne Touba te am na ay soppe lool euh, tey dinañ ci jàpp def levée de fonds. pour ñu dimbali ko ba mu tabax euh, li mu bëgg a tabax ci xale euh, fële nga xamante ni moo yàlla na ko euh, yàlla mottali ndax Serigne Touba moom li ñu ci wax rek mm. amul tànk ginnaaw tànk kanam la la la am mm-hmm. te lépp loo ci yëkkati mm-hmm. dafay barkeel rawatina xale bu nga xam ne tey moom lu muy doon tuut tànk tuut tànk xalaat na ni war na mën a defar kër Serigne Touba yàlla ko yàlla may gudd fan kon dina ñëw léegi fekk si ñu ci plateau bi jërëjëf Malick ma bëggoon baaxee téléspectateurs yi ab alerte boo xamee ni Euh, ñun itam euh, nous parlons de tout dans cette émission ab alerte la xam nga yaa ngi wax léegi ni bëri na ay bërëb yoo xam ni euh, dinañ ci ñëw di ko waxtaanee ci info bi mais tey dañu jot alerte boo xam ne ni mu ngi jëm ci Lac Rose Lac Rose nag bu ñu moytuwul dina disparaître ah. te loolu du doon lu baax ci tourisme bu Sénégal tout à fait parce que xam nga en fait Lac Rose dafa nekk un site mythique mhm. nekk un site historique nekk mhm. un site touristique mhm. nekk également destination bu nga xam ne ku ñëw Sénégal ci wàllu tourisme mhm. di nga jéem a dañ kumpa lag boobu lan moo tax mu am couleur boobu ak lan mooy lac rose boo fàttali ko rallye Paris Dakar cay jamono lac rose lañ daan lañ daan teere ji donc mu nekk fu nga xamante nii war nañ ko sàmm war nañu ko aar ba nga xam ni du disparaître parce que bu disparaître ça va être un pan important ah oui. du tourisme sénégalais ah qui va disparaître ah oui. et ça ñoo fay liggéey ak ñi yëngu ci wàllu tourisme am na kuñ ci taseel mu ngi wuyoo turu euh, Ibrahima mbay ñu déglu kàddoom yi mu jox Corombaar Ndiaye. Laisse-moi seul, je fi ñu nekk nii yëpp ci biir ndox mi la waroon nekk normalement mais gis ngeen malheureusement fii yëpp dafa commencé tarir maanaam dafa commencé ngiis loolu nag day tax population yi di si profito di ko def ay borne nii euh, pour mën ko tawax ëllëg loolu nag dañuy tiitel parce que ñoom bu ñu sañoon tey jii fii yëpp dañ koy sëkk d'ailleurs sax commencé na parce que boo ñu xoolee si ginnaaw yaa ngi gis ay borne ni def nañ seen ay ba pare euh, def nañ ay ay bornage ba pare loolu rek pour gën a mën a faagagal lag bi bu sañoon tey jii dañ koy dañ koy sëkk ba nga xam ni ay dëkkuwaay lay doon te loolu nag dafa war a interpeller ñëpp muy l'opinion national et internationale parce que lag bi yàgg nañ koy agressé boo leen xoolee si ginnaaw dune de sable foofu yëpp dañu ko Euh, tabax euh, tey nag euh, dara desul lu dul jël fii yëpp daal di koy def li nga xam ne ni moom mooy ay borne borne yooyu tey jii moom mooy longé ba presque egg si nga xam ne moom mooy ndox mi loolu nag moo tax tey jii ñu interpeller nit ñi ni leen vraiment le lac rose est en voie de disparition parce que loo xamante ni mën nañu wax ci tey 18 kilomètres carrés la tey mu des lu dul 4 kilomètres carrés y a un problème te lac rose nekk site boo xamante ni c' est le site nii la continuer dina jafe lool pour ñu benn ko déclarer li nga xam ne moom mooy patrimoine de l'UNESCO Ibrahima Mbaye euh, doon wax euh, euh, seen jaaxle ak njàqare bu ñu moytuwul patrimoine boobule di Lac Rose dina naxsaay voilà dafa nekk en voie de disparition li ko waral nag duñ ci sori on va laisser le soin aux experts ñoom dinañ ci ñu dinañ ñu ci indil ay leeral ci bërëb boobule nga xamee ni patrimoine la et puis voilà Euh, daanaka bëriwul sax ci àddina euh, am na Australie euh, fii Sénégal nag suñu lac beek ni mu rosé ak doon zone touristique bu mucc ayib buñ ci jógee dina gën a baax pour tourisme bu Sénégal donc loolu alerte la boo xamee ni jot nañu ko bëggoon leen ko baaxee tey ci midi plus bi midi 15 mooy doogo jot bu leen fàtte ni mën ngeen a jouer ci li nga xamee ni moo di méga win bu orange c'est très simple da ngeen di yónnee win W N. Euh, ngeen di yónnee ci 22 7 22 bu ngeen ko yónneewee rek di ngeen mën a yokk seen wërsëgu gagné euh, ci euh, million yi ak oto beeg kër gi nga xam ne ni orange teg na ko jagleel ko ay kiliyaanam on va continuer ak sujet yi laataa ñuy continuer di recevoir sunu invité yi ci wàllu luyaas bi maa ngi koy wax sànq réglementation wu njëgu luyaas bi fii ci Sénégal exigence la pour président Macky sal ci conseil des ministres bi passé et c'est la énième fois ñuy def promesse pour que sénégalais yi. mën a euh, euh, dund euh, application wu li nga xam ne ni moo jëm ci loi ci wàññite njëgu loyer bi nga xam ne ni depuis 2014 ci lañ ko adopté woon fii ci Sénégal selon nag sénégalais yu bëri suivi loi bi dafa war a nekk lu impératif normalement ñu ànd ci ak ki xamante ni moo di Fatima Touré. jëm ci wàllum loyer loole le président ma Macky Sall daati bëgg question loyer bi nga xam ni sax ñëpp ñu ngi koy waxtaanee doon li nga xam ni andi na ay jafe-jafe ndaxte boobu ba tey kenn rek daati respecté wul loi bi nga xam ni moom lañ ci wote woon ci atum 2014. bu nu wootee loi bi moom bu nu wootee loi bi rek dana a réglé réglé ko ci tàng tàng bi. dëgg suba ngoon fii ñu toog suñu grand place fii suba ngoon ñetti ngi ñëw lu muy lu muy toppatoo location location location. néeg lu mu tuuti tuuti cinquante mille francs appartement deux cent mille francs cinquante kan moo ko am. te fekk bu ñu ko waxee ba léegi dafa gën a yokk kon dafa am lu nekk si loo xamante ne doxewul nu mu war a doxee. envoyé ay nit ñu dem dugg si kër di contrôler di wax ñaar ngay fay fii kañ nga fi dëkk ñaar ngay fay kañ nga fi tëdd ñu xool dimension bi. agence yi ak ñi nga xam ni sax ñooy courtier yi saa su nekk ñu leen di duut baaraamu tuuma ki nga xam ni nag moom la ñu dajeel jàpp ni nag ñoom duñu ci dara. karo yokk na ciment yokk na. feer yokku na kër yi njëkk yi dan yomb amuloon euh, service généro mais wàññi bi nañ jàppale ñu wàññi feer bi ciment bi suuf si surtout surtout surtout barème suuf bi ñuy jaay le problème se trouve là-bas njiitu ASCOSEN bu ñu sukkandiku ci ay kàddoom faw rek ñu daal ci teg benn organe boo xam ni moom rek mooy topp lépp loo xam ne rek dafa jëm ci li nga xam ni moo nekk ci digg bailleur bi ak ki nga xam ni moom la ñuy loué. nañ créé observatoire du loyer et de l'immobilier mu nekk kuréel goo xam ne suba mi di moom mooy lijjanti location yi ko am jafe-jafe ak sa bailleur ko am jafe-jafe ak sa locataire bu fekkee ni prix yi d'accord leen ci lépp loo xam ne jafe la daal lu jëm ci mbirum location bi. su boobaa kuréel googu moo nga xam ne nag moo di yokkub loyer bi fii ci Sénégal boobu ba tey nag yàgg lool tey nag ak décision bi nga xam ne président Macky Sall jël na ko indiwaat beneen yaakaar ci population bi di ñaan rek ñu appliquer ko ci nu mu gën a gaawee. mu ngoog donc luyaas bu metti bi ci réew mi rappelez-vous Madiodio Gningue moo ko woyoon de à l'époque il y a très longtemps et jusqu'à présent euh, sénégalais yaa ngi dund ay jafe-jafe euh, ci wàllu payub luyaas 2014 euh, ci la luwa bi génnoon waaye boobu ba tey daanaka application bi dafa des am na ci borom kër yu bëri yoo xamee ni dañu bàyyi ba ña woon génn ñu yokkaat prix yi wala defaat ko prix yoo xamante ni paraît-il que c'est pas normal bon après faw ñu dem ci ak prudence ndax ñiy tabax itam Euh, jël seen kër di ko loué ñoom it euh, bëgg nañu dara euh, ñiy loué itam luyaas bi des fois day métti ci ñoom donc du coup day faral di xaw a am ay jafe-jafe mais réglementation wu njëgu loyer bi xam naa ne ñoom autorité yi bu ñu ci jógee dina gën a baax ba Dieynaba du Ba mi nga xam ni mooy suñu spécialiste ci wàllu dëkkuwaay yàgg na ko waxtaanee ci émission boobu la di sama kër daañ ko ñaax ngir mu sensibiliser gën joxewaat ay information jëm ci boobu boobule ak application bi nga xamante ni application bi nga xam ni dafa war a nekk lu impératif euh, dinañ ci euh, gëstu ak moom bu ko defee euh, ñu xool naka la autorité yi mën a cee jàpp ba keroog ñuy mën a jubóog suñu gaañ yi loué. clip baa ngoogu appulaay lu yàgg la sax et pourtant ba léegi ñu ngi amee jafe-jafe ngir jubóog suñu gaañ yi loué. thank you ñu gaañi loué c'était il y a très très très très très très très longtemps à l'époque euh, ca euh, jamonoy euh, benn télévision fii ci Sénégal télévision nationale clip du jour on se rappelle de ça ak euh, ajotuma jooju ñing euh, suma yaay suma euh, suma xarit la woon ndeysaan yaayu Adja Touré maamu Awa Guèye moom nag moo ko woyoon te ba léegi sénégalais yaa ngi kaas ci luyaas bu seer nanu toog nag xaar après dinañu xam peut-être fan la wànnent di mujjee ki gëtam et voilà yàlla baax na on vous souhaite encore une très bonne journée yéen ñi xëy ànd ak ñun ci télévision Futur Média midi 21 mooy doog a jot laataa ñu leen di woon turu Facebook bu bees ci euh, euh, lu ñu yëg diggante bërki démb démb ak euh, tey ak Mark Zuckerberg qui a dévoilé donc le le nouveau nom de Facebook muy benn plateforme sociale boo xamee ni entièrement numérisée dans laquelle Facebook daf ci investir ay milliards de dollars moom nag xale la bu garaaw sax. Euh, moom Marc mi alors fois toutefois euh, réseau social bi euh, dafay garder touram c'est la société qui devient Meta voilà donc Facebook dafay nekk toujours Facebook waaye société bi nga xam ne ni ci la plateforme boobu la bokk moo tudd désormais Meta dañ ciy ànd ak Mamadou Ndiaye puisque mooy suñu spécialiste digital. A new company brand to encompass everything that we do. mu présenté logo bu bees tàq mu mel ne huit bu dëpp fond bu weex tàll loolu la marque communiqué fësal ni turu Facebook changé nañ ko duppee nañ ko léegi Meta réseau sociale bi nga xamante ni dafa ëmb lii di Instagram ak WhatsApp fësal ne coppi na ab turam tuddee ko Meta waaye changement yi tamit du am ci ni ngeen tàmmee di jëfandikoo Facebook logo Facebook du changé waaye société bi ci boppam la daal di béral ne changé na ko léegi Meta la tudd. meta nag mooy diminutif métaverse moom ci boppam annoncé woon na ay fan yi ñu génn fesal ne Facebook dafa nar a gën a jëm ca kanam surtout ci fukki at yi ñu jëm ndaxte changement yu yaatoo yaatu ci mbirum intelligence artificielle nit ki mën na toog fi mu toog dem ci ab boutique daal di fay jënd yére essayer ko te doo déplacé wu. wala yi tamit nga toog ak say ay xarit demandoog ñoom soirée te doo déplacé wu loolu nag ci dégg-dégg dina jaaxal nit ñi waaye marque ci communiqué bi fësal na ni loolu fukki at yi ñu jëm day nekk lu banal ci la marque daal di profité fësal nii tamit lii di vie privée doomu aadama yi dina ko gën a bàyyi xel gën ko respecté changement Facebook bi nag ñëw na ci période boo xamante ni ay lanceuse d'alerte ku ci mel ne France Hogan génn ci bu yàggul dara mercredi bi daal di demoon fële ca Sénat ba ñu jàkkaarloo ak moom mu lancé alerte yi tamit fésal ne Facebook fi ñu jëm ak moom ndox amu fa ndaxte moom day xeex lii di démocratie mais surtout tamit tegul benn jumtukaay boo xamante ni dafa tax ngir xeex lii di fake news waaye tamit dolli ci ne ndaw ñi tamit bàyyiwu leen xel. ci période de crise bii nga xamante ni Facebook am na lii ñu duppee e-réputation mu amoon jafe-jafe ndaxte ñu ko doon ŋàññi bari na ci la daal di profité lancé turam bu bees bii di Meta loolu nag ci yenn ci borom xam-xam yi gis nañ ne Facebook dafa ñëwaat indi coppite ngir defaraat xar kanamam ndaxte tolloon na ci ay jafe-jafe. waa donc euh, euh, Facebook qui change de nom et qui devient euh, Meta enfin plateforme la boo xamante ni moom Mark Zuckerberg moo ko annoncé il a dévoilé donc plateforme boobule ngir internautes yi voilà c'est tout nouveau Euh, daañ ko gën a euh, expliquer euh, téléspectateurs yi d'ici lundi ak mamadu Ndiaye mi ibi parenthèse doon ñu ko woon pour ñu nekk au diapason de ce qui se passe côté digital bu leen fàtte hashtag bii di Midi Plus moo leen di permetre ngeen di commentaire di ànd ak ñun ci compte yi nga xam ne am nañu ko ci réseau sociaux yi ñu ngi nuyu nag suñu benn xarit kii moom sama benn xarit la bu nekk France mais dafa pata quoi xam naa il faut mu wutal ko Chine lady Chine lady <laughs> léegi Amina Poté moom la naan ba biir bi jeex euh, Viviane moom lay naan moo ko tax euh, mel ni mu mel léegi nag sama xarit bi Kumba Fall mi ne France comme biir bi daanaka euh, toll na ni saa bi il faut ma jëndal ko Chine Lady. voilà mooy thé bu baax boobu nga xam ni jigéen bu ko naan dangay am ventre plat euh, il faut mu wutal ko ko ci voilà donc maa ngi nuyu d'ailleurs waa Chine Lady parce que samay xarit lañu et euh, mënul ñàkk quoi donc puisque je donne tout le temps des cadeaux Kumba euh, Fall ma ca France te pata lool biir bi rey te bu buggul bugg ko dem defi chirurgie da ko bëgg a dindi naturellement il faut mu wutal ko Chine Lady je vous donnerai numéro de téléphone yeeg ñoom seen comme ça jigéen yi am biir bu rëy bëgg am ventre plat bu ñu naanee Chine Lady rek dinañ ci mën a génn donc ñu ngi lay nuyu Kumba euh, ak euh, waa Paris euh, dem dëkk bu ñu naan Conakry am nañ fa ay soppe yu ànd ak ñun très fidèle ci programme yu télévision Futur Média surtout Midi Plus bi nga xam ni à l'heure de la pause su ma dee jël commande yi dañuy ànd ak ñun ci télévision Futur Média Baye Seex Xasida tey doon ganu Midi Plus dama bëgg mu may ñu ay daaj rek am lu mu ñu lu mu lu mu ñu nuyoo laataa ñuy tàmbali waxtaan bi ak moom euh, fàttali itam ni euh, comme euh, chaque midi dañuy recevoir itam ay xale yuy inventé ak di entreprendre tey itam dinañu leen wanaleeg xale boo xamee ni dafa am talent oto yi ngeen di gis moom moo ko defar c'est un jeune sénégalais qui crée euh, des voitures di defar ay mbir yoo xamante ni euh, ay invention de génie il sera avec xale bu ndaw la pourtant regardez moo defar oto bi il sera avec moom itam dans quelques instants euh, ci euh, plateau bu midi plus ginnaaw nag Faty Dieng Moumoud Fall mu ngi wàcc ñëw pour jox ñu tiituru jotaayu xibaar diggu bëccëg gi damaa bëggoon rek Baye Cheikh am lu mu ko accueillir am lu mu leen nuyoo laataa ñuy tàmbali waxtaan wi ak moom ci midi plus bi Baye Cheikh nuyu naa la. ñu ngi jël baax di la ziyaaraat bu baax di ziyaaraat mbokk tali bi mbokk yëpp di ziyaar waa tali bi yëpp di ziyaar sunu jëwriñ ñëpp rek kon nag ñu bu baax a baax di ziyaar tamit soxna si xam si ni moo ñu woo di ziyaar tamit sunu waa ji taxaw di ziyaaraat ñëpp rek di leen jox seen wàccuwaay di nga xam ni tey man seen doom la seen xarit laa ndax man ndaw mi jàng laa ndaw rek mi jàng laa di liggéey Sëñ Tuubaa te maa ñaan ngeen ñaanal ma ma gën cee yokk ba am ci affaire yi ak yooyu noonu allah loolu moom suñu borom da koy def ci barke Serigne Touba laataa ngay ñëw toog fii sama wet pour ñu waxtaan dama bëggoon nga euh, nga nga léemul ñu euh, jotaay bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يسر لي ميسر عسيري ما اختار أني بلا مسيري يسر لي ميسر عسيري ما اختار أني بلا مسيري ولا اليقين لي سوايا مدبرا بما على سرية مدبرا وكان إليام باخ غبا بذكري ووليام عنه رديت وواني رادي بلا مكاره ولا أمرادي رجا لخير جادي الشيطانا لم تيب الممر والأوتانا فرا لخير جاد لقيد يشقى لخيرنا المضينا هديتي من الإله والنبي كليتي سفر وسافة نبير توفيق وادي القاد وإلغام حد بيالي ما لهم بعام بدا لي اليوم برب القيامام عازني من القلب والقيامام لا يتوادوا لنعم الغبوم هني مخدم كارئي وتعبون سعادتي بخير ما الكتبتي وكوني قبل القديم الخصبتي سكر يسر الأسير مختار ودي بلا مسير سكر لي يسر الأسير مختار لي بلا مسير يا ربنا إن الورى تدرى لأوليائك ما ليفوق يا ربنا يا ربنا فكن لنا واجعل لنا ألفا وأمنا يا أحد يا من تعالى لم يكن كفنا خديم مناكب الله التي قد خدا آدم موسى يوسف محمدا ثم عليا وسليمان على هوى سورا وسلي خبورا هدية الخائسة للمصطفى فاطمة البلقيس زينب الكفا فلا إله إلا الله فهم الشيخ إبرا لا إله إلا الله فهم فلا إله إلا الله فهم الشيخ إبرا لا إله إلا الله فهم فلا إله Baye Cheikh bég nañu léegi da ngay ñëw fekk si ma fii xaaral ma ñëw jël si la ñu euh, euh, toog nag waxtaan ba ca kanam ah yaa ngi gis sa bàjjen bële faati moom da nga ko sopp de <laughs> xam nga Fati moom Sénégal yëpp ko bëgg bu dee journal da ngay kontaan ah. soxol bi dafay sedd ah. jeex na Baye Cheikh tey lañu àndal euh, Fati maa ngi lay nuyu. Cheikh lay fay. boo ko déggee euh, sa xol bi dafay sedd de. waaw li muy yëkkati ci xaside borom Touba yi neex na. Uh-huh. macha allah euh, ku ñu sopp la ku ñuy suivre également la ci réseaux sociaux yi Pape Cheikh. macha allah dinañu waxtaan ak moom léegi nii ci plateau bi en attendant ci kanam dina mm-hmm. euh, dinañu ànd ak yow tombé ak une jot ci journalu diggu bëccëg bi lan nga ci fas yéenee fésal. Euh, Pape Cheikh bokk na ci li fas yéene faram-fàcce xam nga ni euh, euh, élection municipale yi maanaam locale yi mooy municipale ak départementale yi dëkkmal nañ ko ba tax na lu jëm nag ci dépôt li nga xam ne moom moo soxal liste yi ñu ne tàmbali na tey ji nag kii Sénégal wërngal këpp Abdoulaye Diouf saar moom moom la ñu jiital ca Benno Bokk Yaakaar Cheikh Ba itam tontu na Bamba Fall mi doon sàkku rek mu tekki ndombal tànkam ci. caisse des dépôts euh, ak consignation leneen itam lu ñu fas yéene faram-fàccee Pape Cheikh mooy lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak Kaolack lañ fa doon def di consultation ñu ne euh, ci juróom-ñeent fukk ak benn euh, yi ñu xool ndax xam ngeen ne ñu ngi ci ba tey ci weeru octobre ñu ne ñeent fukk yi ak juróom-benn daal am nañu jàngoro yu sëy juróom-ñaar ya xel dafa ñaaw ci ñu amee cancer col de l'utérus muy cancer bi jàpp butitu njurukaay lu jëm itam ci wàllu VIH sida am na luñ ca waxtaanee université Gaston Berger ndongo yaa ngay ñaxtu lu ko waral nee ñu euh, ñàkku kaaraange ndax ay xeetu reptile ñoo fay génn ba noppi itam anam ya nuy jàngee dafa xaw a mitti caada daan ci ñëw maam euh, fàttandoo itam Pape Cheikh dina fi teew ñu faram fàccee xibaaru euh, tàggat yaram. incha allah incha allah à tout ana Modou Fall moom mi ngi fa mi <laughs> <laughs> jërëjëf maam Fati euh, ci kanam nga dellusiwaat bu ko defee nga yaatal euh, euh, loole nga ñu jox ci ay xët midi 33 mooy doog a jot ñu am mbégte nag dalal suma doom ji di Baye Cheikh Xasida Baye Cheikh maa ngi lay nuyu bég naa dama bëggoon bàyyi rek nga am loo ñu loo ñu nuyoo. ci baat bu neex bi macha allah mais dama lay waat nga nuyoog téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ah ma bàyyi la nga nuyoog ñoom. waa kër prestataire bi ñu ngi leen nuyu di leen ziar. Mhm. di leen jox seen wàccuwaay. Euh, di jiite si nuyoo bi yow. Mhm. di si nuyoo bi borom télé bi Youssou Ndour. Mhm. ñu ngi koy ziar baax a baax a baax. Euh, di ziar ak képp koo xam si nii rek mi ngi ci ginnaawam. ñuy ziar ñu ngi lay baax a baax a baax. te di ziar waa Ngaay. te it man sagum Ngaay la di leen ziar baax a baax. di leen jox si wàccuwaay ku mel ni sama safoor Ndiaga. di ziaraate ñu àndal. Mhm. sa staff bi quoi sa équipe bi nga àndal. waaw Basiirou <laughs> dafa ànd ak staffam ah. sama rak euh, Serigne ak euh, Sidi Bara. Mhm. di ziaraat ñëpp rek. Mhm. di am loo xam si ne daal moom kontaan nañ ci lool lool lool. macha allah kontaan nañ lool ci yow. yow yow yow sama doom nga. ana sa ana sa ay waajur. sama waajur mi fi Oustaz Dame Ndiaye la tudd. Oustaz Oustaz Dame Ndiaye. waaw ki si des moom Fatou Chérif. bokk ci waa Guèye te bokk ci naar yi. Ah. waaw. kon kay Chérif nga ba Cheikh. Chérif macha allah <laughs> eh, ñu ñu ñu bëggoon nga wax ñu tuuti eh, ci sa histoire c'est vrai que am nga projet bu mag. boo xam ne dama bëgg Sénégal yëpp xam ko. Mm. muy kër Serigne tubaab bi nga bëgg a eh, tabax ca Ndukkura. mais mm. balay boobu kañ nga tàmbali ci daara ji. waaw waaw ci daara ji kañ laa ci tàmbali mën naa ni. bi may tàmbali ci daal damaa fekk sama baay di jàngal alxuraan. man daanaka gars ñi ñoo fi nekk rek naan mag laa. waaw mais tamit xale laa de. war ñu naan mag nga. waaw loolu loolu jaaxal loolu xëy si <laughs> man tëjaguma si sax. parce que man maa ngi gis ci interview mhm. yeeg mhm. fekk na jamono si ma kii Madina. Mhm. nangam nangam. maa ngi tuub daal waaye daal xale bu ndaw laa. seen doom laa seen rakk laa seen mag seen samay mag ñin waaw ndax eh, am na loo xam si ne nit ki bu ko dee xam ko dee wax rek eh, ko da koo xamul mm-hmm. waaw wax ne jégal nañ leen bu baax nag mm-hmm. xam naa dañoo xamul dañoo xamul kay dañoo xamul rek waaye nit ko xam moom mm-hmm. da koy xamale ndax xool la ba seppali la de daal fekkee wuñu foo juddoo fekkewuñu wuñu dara bëgg ni mag nga bëgg ni fekkee nga jamono Serigne Mbacké Madina waaw waaw loolu tamit yoo wax yooyu boo ko dee dégg lu lay def ah, dafa def dara de waaye kaf rek reetaan waaw damay kaf reetaan ci rek xam nga xam nga rek di reetaan waaye moom wallaahi samay sopp lañ bëgg nañ ma te man bëgg naa man ku ma bëgg dama lay bëgg yàlla xam na ko ku ma topp rek bëgg man loolu dama lay bëgg ndax suñ tubaab moo def loolu man su fekkoon mooy comme Pape Cheikh am na ñoo xam si ni xale yu ndaw yoo xam si ni seen yaay jur na leen mais tamit kenn faalewu leen waaye man su ma awoo biir Dakar gi wala biir Touba rek mhm. ñu commencé la suñ Touba suñ ko def si ñun loolu ko def si ñun suñ moo ko def si ñun wallaahi mhm. su ma jàngul woon xasida yi kenn ma faale dañ may romb gauche ak droite waaw waaye tamit nit ñi soq soq boo xam si ni mhm. dañ may bëgg man tamit ma bëgg leen waaw ku ma jox sa loxo rek ma ma jox la sama loxo. Mhm. nuyu la xam ni. Mhm. loolu fi am. Mhm. murit day bëggante. te Sëñ Tuubaa tax. waaye nag euh, am ñu loo xam si ni nag mooy li nga xam si ni euh, suba am nañu foo xam si ni dañ fa war a dem. suñu benn xarit. ñun xale nda yëpp dañ fay daje suba. muy Baye Moussa Touré Baye Moussa Touré. Baye Moussa Touré waaw. moom moo aaye suba. Euh, moom fu mu aayee suba. moom géejewaay la aayee. ah géejewaay ok la aayee waxoon naa la ko xamal naa waxoon naa la photo bi. yi yëpp xale yaa ngi nii. Mhm. Euh, boo leen kii daal day neex. loolu benn benn kii boo xam si day neex loolu day mhm. neex. Mhm. waaye tamit ñu ngi leen di ni Sine Moussa Seye xam nga ko. Sine Moussa Seye Baye Moussa Touré waaw ñu ngi leen di ziar baax a baax ñoom. di jox seen wàccuwaay bu baax. ndax samay morom lañ te dañuy jàng si Tuubaa dañuy jàng. ci xasida yi mais naka ngay dundee. nga nekk ak sa ay moroom mhm. yow ñu si nga siiw. Mhm. ñëpp xam la. àdduna mhm. bi yëpp macha allah maa ngi laal maa ngi maa ngi laal bant naka ngay dundee ci daara ji. ak ca koñ ba. ak ca kër ga ak sa yeneen moroom yi. naka naka ngay naka ngay dundee ak ñoom. la dundee sama morom yi. Euh, sama morom yi daal moom. to alfakar la moom sant naa si ñoom. ndax am na ñoo xam si ne nag li ma li ma li ma defal lañ damay toppee. am na ñoo xam si nag duñ ma bëgg comme démb fi ma jugee. Mhm. ma dama def dara ci mhm. Dakar gii. Mhm. ay yoon Touba fii benn benn jàng. mais tamit xale yi bëri nañ fa bëri goo xam si ni. Euh, dañoo mujj programme bi sax nii nañ nañ nañ nañ ma fi ba ci kanam ndax so ma jàngoon rek ma di caale yi li xaw dina bëri. dëgg la ndax de programme ku ku nekk xam nañ ni yow boo aayoon programme doo bëgg mu teel a jeex. moo tax ñu ni bàyyi Cheikh nañ ko fi téye. Mhm. ndax ñi ñëpp moom la mhm. moo taxoon ñoom ñëpp a bàbbeeku ñëw di la seetaan si. waaw waaw gis nga bi bi ma ñëwee ci pujum bi. Mhm. bay toog bay jàng rek li xale yëpp bàbbeeku ñëw toog ba euh, gars yi sonn nañ lool. waaye loolu suñ tubaa rek. suñ tubaa si ñun. waaw suñ tubaa ko si ñun kon ñu tàllalaat loxo yi ñu ñaanal ñu ñun soxla nañu ñaan. ñu tàllalaat loxo yi ñu ñaanal ñu baax a baax a baax. te xam ne ay ndaw rek lañ. te xam ne liñ man ci ci Sëriñ ay waxtaan yooyu xam naa bëriwul. Hmm. mën nga wax mën nga def dara. Hmm. jàng xasida liñ ñu sant. moom la ñu waaw sa sa sa waajur nga nga nga nga juddu fekk ko mu yore daara. Hmm. donc moom moo la ci dugal. moo ci ba nga doon ci li nga ci doon tey. waaye njàng mi. Eh, ndax mën nga ñu nettali naka la demee ba nga am ci xam-xam ni macha allah ci at yi nga am. Mhm. ndax nit judd na ba màgg. Mhm. Eh, mënul benn daaju xasida oh, wala amu ci tur. wala amu ci benn xam-xam. Mhm. waaye yow nga nekk tout tànk ba noppi. macha allah am ci tur. am ci xam loolu nettali ñu nu mu demee Baye Cheikh. Eh, man dama juddu fekk sama waajur yor daara. mais man mën naa ni xawoon na maa day waar de. Ah, lu tax loolu. duggoon naa ci ay fekki bàkku yooyu. ah di def yëfu xale. di def yëfu xale avant mooy jàng xasida yi. Pape Cheikh la bu ko lépp koo ci laaj mun na mën a na sos. <laughs> Bakku Zos. Bakku Zos bi. yooyu yëpp mën mën na nañ ko waaye xoolal fi Sëñ Tuubaa jaar ak ñun rek. wallaahi loolu lépp nga xam nga daan nañ tëgg foofu noonu bu ko rëggee. ay mbapat. wallaahi ay reta ay reta ni may jàpp quoi. wallaahi Sëñ Tuubaa Mbàkke mais Sëñ Tuubaa amul morom. wallaahi amul morom amul morom mais sama papa jëlee ma ci loolu nag. Uh-huh. ci li ma ci sama maam ni ko yóbbu ko. mais nu mu daan demee dañ la daan invité ngay ñëw di bàkku bàkku sos. wala yaa daan dem ci xew yi. foofu foofu danaa am euh, danaa am chaque comme ça ustaat la danaa am mbapat. ok dañ ko doon tëgg comme ni ñu tëggee football bi ni muy amee. dañ ko fa daan tëgg mu fees dell nag. mu amoon ci cap am ci euh, tenue am ci bot. amoon nga yooyu yëpp waaw <laughs> amoon naa yooyu yëpp yëpp kay amoon naa ko si. Uh-huh. waaye tamit Sëñ Tuubaa li def kenn amul morom. Sëñ Tuubaa amul morom. Mm-hmm. Ah, sama sama sama baay daal may jëli ci loolu. indi mhm. ma ci daara ji man naa ni bi may jëli ci daara ji xam ma dara. Mhm. sama bisim ñëw daara fàttaliwu ma ko. fàttaliku woo ko ba tey te xamuloo ñaataat nga amoon boobu tan fàtte nga wóor na yàlla mhm. sama ñëw daara fàttaliwu ma ko. ba Sëriñ Tuubaa sama ñëw daara sama ñëw bi jàng alfaan fàttaliwu ko woon parce que xale boo dee jël di ko yóbbu ci daara te mu mer meroo jooyuloo meru ma jooyu ma def dara da nangu rek fi Sëriñ Tuubaa fu mu lay jaar xoolal lii rek. tey mën naa ni moom biir biir Sénégal am na fu mu dem xanaa li ci des li ci génn. ay tamit ñu sant ñëpp rek. di xam di jiital ci nuyoo bi. di kii di di sant sama sama sama jàpp sama jàngkat. ki ma doon roy fii Ibrahima Gueye. Ibrahima Gueye sant bu baax a baax di sant suñu jiil garaamee ñoom ñëpp. seen xaalis am. moom am na am na bis bu muy def foofu bis bu mag sax. ku ci sant bu baax a baax. Pape Cheikh loolu moom Sëriñ Tuubaa moo ko def. man moom daan naa bàkku daan naa def yëpp. daan nga bàkku ak yëpp. waaw mënati ngaa bàkku léegi waaye mënatoo ko de ma ko de léegi dootoo ko defati. léegi bi nga bi nga yeggee bi nga yeggee ci ci daara bi. Euh, après njàng mi foofu naka la fa demee woon ba nga mën ci lii nga ci mën ndax bi ngay dem nee nga. xamuloo dara ci ci ci xasida yi. Mm-hmm. waaye suñu borom dimbali la. Euh, ba ba nga doon ci lii nga ci doon. Mm-hmm. bi nga yeggee ba sa baay bi yóbbu la foofu naka la naka la mbir yi demee. sama papa bi ma yóbbu ci daara ji moom dañ ma xam nga dañ la daara bu la fi yóbbu di jik si kër tëb tëb jàng aliwo nga am foo jaar fer ji nga commencé si ji waaye tamit bi bi bi ma jàngee ba jàng ba wàcc am naa ni bi ma wàcc alxuraan bi ma wàccu alxuraan yàggut mën naa ni korte bi passé ba ci topp cila ci toppaat la ba tey jii nag avant ma wàcc alxuraan muy xasida gi ma njëkk man mën moom laa la jàngal fii sànq. muy yasara yi bii nga njëkk a mën. waaw moom laa njëkk a mën xasida googu laa njëkk a mën ci laa ko jàngee ci isbu tarxiya uh-huh. ci ci ci ci jur na xasida ngaay bi. Uh-huh. ci laa ko njëkk a jàngee waaye ki ma ki ma ki ma ki ma njëkk uuf may jàng. Uh-huh. boobu mënu nga ma jàng xasida sax dama daan sikkar rek. daayira bu amee ma sikkar jaar naa lu ne. daayira bu amee ma sikkar muy Mor Diop sama rakku papa moom mu daan uuf may jàng si daara Ndukuru bi eh, ba léegi nii sax am na ñoo xam si ne buñ aayee dañuy bëgg ma ñëw ndax ni ma mënee xas di léegi rek waaye tamit eh, gis nga bi ma bi ma bi ma mënee xas di googu mu yësal li mu yësal asili boobu benn paas la daanaka benn paas ma teg ci rabbi bi maay surxul asqa naqat fa jaa ma teg ko ci bi ma ko ci tegee eh, di mujj di dem dañ ma bett Ibrahima dama jóge ñëw rek yëkkati teg ma ci puju mi ni nga demee da ngay jàng ak xasida wallaahi te waajoo ko waajoo ma ko ma tiit bay bëgg a dee waaye ma jël micro bi rek jàng def wallaahi pour ma jël micro bi rek jàng bi ma jàngee rek ku nekk boobu siw lool fii lool lool lool ba nga xam si ni mat détaillé waaye amat laal yëg yëg boo xam si ni Sëriñ Tuubaa ko uh-huh. moom ñu ci yaakaar Sëriñ Tuubaa ah, baax baax uh-huh. mu ngoog et actuellement yaa ngi am projet bu mag boo xam ni mm-hmm. bëgg naa ñu wax ci muy kër sëriñ Touba bi nga mm-hmm. bi nga bëgg a tabax euh, Ndoukoura mais balaay boobu lan moo tax nga nekk xale mm-hmm. jékki-jékki xalaat ni rek war nga ibbi euh, foo xame ni sa moroom yi dañu fay mën di ñëw di jàng waaw nag balaa kër xasida gi ñëw moom maanaam kër xasida gi euh, biñ biñ ma koy may maanaam ci jàng lañ ma ko may su ma nekkoon xale boo xam si ne damay ñëw di taxawal kenn mën naa ne kenn du ma may xas. kenn du la faale sax kenn du ma mm-hmm. may kër gi. Mm-hmm. waaye li ma may man tamit xalaatuma ci dara lu dul kër def ko xasida yi Sëriñ na ko ba kii. lu tax defoo ko pour sa yëf dëkk fa. Ah, tabax ko loolu dañoo am yëg-yëg Sëriñ Tuubaa ñun mm-hmm. Sëriñ Tuubaa defal defal lu ko kenn. Sëriñ Tuubaa dañoo defal loo xam si wallaahi mënuñu ko koo fay. suñu waajur defu ko ci suñu suñu baay defu ko ci. loolu la Sëriñ Tuubaa. Sëriñ moo ñu defal loolu. waaw waaye tamit nag ñu santaat ko bu baax kër xasida gi li tax ma defar ko dafa am ñoo xam si ne jàngkat lañ comme samay morom dañuy ñëw ngaay ngaay euh, xam nga rek euh, war a sa ñu am fa ñaari bis war faa fanaan loolu nag moo tax sama xel xalaat ci pour mën leen fay dalal. parce que bu ñu ñëwee mën nañu am fu ñu fanaan ñu dëkk. Mm-hmm. loolu laa bëgg. Mm-hmm. waaye nag ñu ngi yaan yàlla mu pare jàmm rek. Euh, incha allah bu soobee yàlla dinañ xam Baye Cheikh mu xam këram la koy def wala kër Sëriñ Tuubaa la koy def waaw foofu noonu lay leeree nag d'accord euh, nii da nga am ay dañuy di di def tournée di dem mhm. ci dëkk yi di dem di mhm. jàngi xasida sa ay programme naka lay demee sama programme Baye mhm. euh, su su fekkee ni nan nan lay demee damay yor oliwo di jàng damay jël sama téere di jàng alxuraan bis bu jot waaw dañuy dañuy jàng bu jàngee affaire bi dañuy dab suñu papa la ñu woo téléphone rek moom di jig ci keneen am ngeen fenn programme. waxtaan ah, ñu waxtaan ci. ba dëppoo ci waaw ñu soog a wut oto dem. Mhm. waaye tamit problème oto tamit soxla ne ko. ndax tamit nga xam si ni garage bi yéeme na lool. parce que boo yow boo waree jógee sa dëkk. Mhm. war a ñëw Dakar wala dem mhm. feneen. nooy def da ngay yéeg di wàcc ci oto yi rek. ba yéeg di wàcc ci oto bi loolu métti na trop métti na trop waaye tamit ñu ngi xaasuñ Tuubaa rek. métti na trop te it. Euh, li gën a métti mooy garage bi ngay garage bi ngay taxaw diggante boobu dina am ñu la sopp ñoo xam si ni dañ fay ñëw taxaw di leen nuyu di def nii loolu da ngay sonn loolu loolu mm-hmm. waaye nit du la nuyu ba pare nga sànni sa loxo def noonu kenn kenn kenn foo la ngay def ah. da ngay da ngay am yëg-yëg ni Sëñ Tuubaa moo la ko defal li tax mu leen nuyu Sëñ Tuubaa tax mm-hmm. xës dégg la gis yow mm-hmm. ak ak ak na mel melokaan waaye wax naa la ko tey sànq nii nee naa la su man doonoon koo xam si damay taxawaalu ci mbedd mi kenn du ma faale. Mhm. kenn ma faale kenn du ma andi fenn. Mhm. yàlla xam na ko waaye sant Sëñ Tuubaa rek. ñun na Sëñ koy sant ko yaakaar dañ ak mhm. est-ce que di nga ak ay morom. ndax dañuy wax ni xale day defee fu xale foo bu bu weesoo xasa xasida yi ak alxuraan bi ak kaamil gi ak ñoom seen. di def nag yi fu xale. ànd ak say xarit di nga di nga def yeneen. Mm-hmm. loolu bu loolu bu dee loolu. ak waxtaan ak say xarit ak. waaw waaw waaw wax ma ci tuuti. waaw ci daara ji lay amee nag. ah ci daara ji lay amee waaw parce que comme comme tey la loon sax. ajjuma tey la ajjuma waaw euh, ñoom duñ jàng ak alxames gi. Ah, waaw duñ jàng ak alxames du ko jàng ak àllarba si ngoon gi. waaw duñ ko jàng xam nga diggante boobu mën nga si toog waxtaan. bu bu bu yu mel nii bu amul rek. mën nga toog waxtaan. ak say moroom. Uh-huh. ak say xale. Uh-huh. yéen par yenn saa yi. nga jël sa téléphone nga woo sa sa moromu jànk si ndaw ngeen waxtaan. ah appel ngeen def ah. waxtaan waxtaan waxtaan. <laughs> Baye Cheikh waay loo fan yi iPhone. ah non sama téléphone la yoruma dara. <laughs> xam na ko dama daanu ba jeex tas. dégg nga foog ni man iPhone nga yore. non iPhone de iPhone yoruma ko de yaa ngi yor iPhone yi kay yow di nga am iPhone di nga am iPhone donc Baye Cheikh euh, ñu ngi euh, sunu euh, téléspectateurs yi ñu ngi yónnee ay questions yu bëri. Mm. di ko di la ko di la ko di la ko laaj mais dañu lay bàyyi nga am loo ñu mayaat. Mm-hmm. nga loo ñu ñu loo loo ñu mayaat da nga ànd ak sa. Serigne Saliou bëgg mu ñëw dimbali la wala waaw. ayca ñëwal nga nga nga dimbali ko. bu ko defee mu euh, sikkaral ñu tuuti euh, ñu doog a àggali waxtaan bi Serigne Saliou moom yaa ko mag. maa ko mag. pourtant moom mu ngi mel ni moo la mag. Ah. moom tam grand la de. ah non grand la de <laughs> moom. waaw Serigne Saliou grand la waaye. grand la de Serigne Saliou de mu ngi noonu grand de. macha allah macha allah macha allah. ayca kon ñu déglu leen bisimilah. bismillahi rahmaani rahim. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واقتسل وجه النبي مهجل لبدري يدي وثانني بأهل البدر كرمه أهجل كل بهري وبان لي في البر بار باري سلام عاصم عظيم البر على النبي رسوله ذي البر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 المرسلين لا نبي منتخب مجلي لا وسلم عليه الآلام في الآل وثبي وموالاه وأمر لك أيضا بذلك إلينا ووجه الكتاب تكرما وأنفسا أتابا قم إلى محمد تزال أمر جميل جل مثالي يا مرال بأمر صلي على النبي macha allah macha allah. ki ñu ki ñu rey nii suñu bàyyi la mën naa ni suñu suñu jànkat bu la muy Bamba Ndiaye. Bamba Ndiaye. Bamba jaay suñu suñu suñu suñu bàyyati bàyyi la xam naa. macha allah parce que mag la nag suñu mag la nii fi mu nekk nii mag la. ñu ngi ko ziar baax a baax moom tamit mën na jàng loolu tamit waaye ñu ngi ñaan baat bi gën a wér. amiin amiin di ko ñaanal a baax a baax di ñaanal tamit moromu jànkat yëpp. waaw jërëjëf Baye Sall si Saliou. Baye Baye mm-hmm. léegi da ngay da ngay da da ngeen di toog parce que pareeguma ak yéen midi 52 mooy euh, doog a jot euh, Sénégal a ngi xale yi euh, bëri lool ay soppe mm-hmm. am na itam beneen xale boo xam ne ni ci beneen wàll la nekk mën nañu ko découvrir ci plateau bi moom itam dafay defar ay auto police ay chars de combat il a tellement de talent regardez tout sax moom moo koy moom moo koy defar mu ngi tudd di jàlloo dinañ ko découvrir Euh, bu ca kanamee tuuti euh, àggali itam waxtaan bi ak euh, Baye Seex Xasida suma dooma doomu na fi jeey <laughs> ah ak sa soppe yi daal ñu ngi ñu ngi réagir sànq ba tey Imam Assane Cissé Seck sa ay jur yu bëri ñu ngi ñu ngi bég ci sa sa gëm est-ce que yomb na ni nga gëmee xasida yi ni nga gëmee Serigne Touba ni nga gëmee yoon wi ndax yomb na pour yow mën na la moom xawtu yomb da waaye tamit booy jàng xam nga rek faw affaire tamit dalaale tuuti. Mhm. nelaw gi max. que ci daara ji dañ boo dee jàng nañ la caw wala dinañ la kaata parce que man bi ma nekkee daara dañ ma daan kaata. loolu mënut a ñàkk. waaw mënut a ñàkk a oh, ñàkk a ñàkk. Uh-huh. mënut a ndax tey mm, doo nga daara mooy lépp. Mm-hmm. ndax tey ji mën na ni. Eh, képp koo xam si ni kilifa diine nga rek ci dong daara ci jaar nga ci. dëgg la ku fi baax ci daara ku fi baax ci daara rek jaar. waaw muy ñëpp rek kilifa yi ñëpp rek ci daara lañ jaar. képp képp tëb tëbul rek mokkal alxuraan yi yàlla jox la lépp xam-xam jëpp loolu tëb tëbul eh, maye ko. yàlla du def loolu faaw nga jaar ci faaw nga mittal xam joxe sa bakkan joxe si lépp waaye nag boo paree nekk buur waaw. macha allah <laughs> allez li ñuy def mooy jàll ci publicité yi juste après ñu àggali euh, midi plus bi tey spécial ak euh, Baye Cheikh.